Papa Sall Bigué doomu Sall Bigué. eh Sall yow eh, eh, eh, sëtu Ndeye Fatou Ndiaye. waaw yow loolu sama sët nga. barke ana sa mi ngi fa si kaw. moo yor bayre bi de. <laughs> sa yor bayre bi. yàllaa ko def mënuma ci dara. dëgg la mais tey Boy Niang Balla Gaye dimanche ñëw. Boy Niang na góorgóorlu. Boy Niang góorgóorlu. waaw yaa laaj Balla Gaye de Balla Gaye laaju la de. te yaa gën a féete ndaw. am nañ ci yaakaar. waaw mais Balla Gaye tamit du tas yaakaar de. ah <laughs> loolu moo si commerce allez